nekk vraiment doy na waar ndax tey naka lañ mën a xoole hôpitalu Louga paan ñu mën a jéggi dëkk ba jëmaat ci beneen dëkk te dëkk yeni jéggi am na centre yu mag tey jii boo xoolee Touba am na ñetti centre ñaar yaa ngi dox benn bi doxut daaw ba ren nag ñi ngi wax ci benn boobu doxut gis ngeen centre Louga bii dem Diourbel gi mi ngi ëpp weer te mën nu ko nag tey jii 11 millions nee nañ par mois lañ ci ñàkk biñ ko dalee ñàkk ak léegi te loolu xaj na ci hôpital bi ñuy ñaan nag ministère de la santé na xoolaat centre bu baax a baax xippiwaat ci jalisu Sénégal bu baax a baax parce que centre yi nga xam ne ñu ngi fi nekk di def benn séance par jour nañ leen xool machine yoo xam ne fournisseurs yi nee nan machines yi mën na noo def trois séances par jour kon lu mu gàtt gàtt ñu war caa def deux séances par jour